asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa cheikh Alhaji Ahmed Tidiane Ibrahima Niass noo ngi yëkkati sunuy kàddu ci turu Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mii nu àndal mu waxoon ne suñu ñëwee nañ leen présenté. délégation bii nga xam ne moom lañ présenté léegi te kilifa yi ñu tudd bokk ci di ay nawleem di ay mbokkam di ay xaritam di ay wëllëreem itam ak taalibe yi ak seex si nga xam ne ñoom itam ñoom la àndal ak taalibe yi waaye jot la itam ay nuyoom waaye nuyoo yoo xam ne dafa jóge ci moom dafa jaar ci moom waaye mën nañ ne ci yoonu murit gépp la jóge ndax poroxane la joge ni ci cheikh mamadou muntaka ayyadahu allah wa nasara ci bis bu reuy bi nga xamne mom lay wadjal fan yi mu demone fa dembu ziyaare jiko fanan fa euh tay ji mu ñew fi dembu lako daan def sax waye xam ngeen ni ngeen ko euh bis biñ doon defal Maulana ak cheikh Ibrahima Niass te doon ko tay ba taxon na mu xamne ne yitte yi ngeen ne e, dana xat lool mu ñëw fi demb lool mo taxone bi mu proxan mu ñëw fi ngir mot li yéeneem sëriñ bi nak nee na mi ngi leen di nuyu bu baax di leen sante bu baax itam ci taxaway di am mbégte lool nak waxtu wu ñëwee fi ba ak yow jotaay bi nga xam ne gàtt gi rek moo ko ci naqari ndax lu mu gën a gudd rekk xolam di gën a féex xelam di gën a dal yaakaaram di gën a yokk ngir xam ngum xam ne loolu dafa bokk ci liy ñoŋal di dundal jeexit yi nga xam ne mag ñu baax ñoo ko rabatoon ñoo ko boole woon ñoo ko nosoon ba lépp ne coow di lu jub lu yàlla gërëm nee na way juróoma sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke daa waxoon cib dénkaane ne fa inna alal xalafi an yasuna asara salafi ku wuutu ku ne lala war mooy ñoŋal jeexiti ka nga wuutu nee na loolu du ndonoon dénkaan la lu ñu leen dénk ñu war koy doxe jamono ju ne ndax bu doon ndono la lu leen neex def ci bu leen neexee jaay ko bu leen neexee may ko bu leen neexee sànq ko bu leen neexee réeral ko ndax ñoo ko moom waaye nag loolu dénkaan lañ ko jàppe ndénkaan nag dafa laaj delloo ndax liñ leen jox ñoom jàpp na ne ñu leen ko jox dañ leen ko dénkoon ba ñoom ñii ñu ñëw ñu ñu ñu delloo leen ko kon ñoom itam ndénkaan li dañ ko fas yéene sàmm ba keroog ñu koy ñu koy delloo sëriñ bi nag nee na tànki tayam yi ak jataayam yii wuutalewu ko ak tànk ak jataay ya nga xam ne ak cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ak Maulana cheikh Ibrahima Niass daanañ ko am séqoon ko bokkoon ay bëgg-bëgg bokkoon ay yéene bokk pas-pas dëppoo ay xalaat ci gis gisinu diine woo xam ne àdduna du ko weesu mooy boole jullit ñu nekk benn islah sati benn fexe ba jullit ñi fu ñu mën a ne lu ñu sori sori lu leen ay frontière xajale xajale lu leen ay couleur xàjjale xàjjale lu leen ay làkk xàjjale xàjjale ñu fexe ba ñu yëgoo di diisoo di dimbalante te yàlla rek tax nee na loola ñoom def nañ ca li leen ci war bàyyi nañ fi jeexit woo xam ne itam ku bëgg a topp ca yoon woowa danga am lu leer lu fës lu bir ne lii mooy dëgg nee na loola nag moo tax jataayam fii da koy yàkkamti tey du yàkkamti du fi yàkkamtee jóge ndax loola rek lay delloo si ci xelam mooy lii may def day ay mag ñoo ko daan def ba bàyyi nu fi kon li ma war war ku ne ku mel ne man mooy loolu nga di ko dundal te di ko suuxat nee na ñoom ñaar nag dañoo nekkoon ñaari nit ñoo xam ne dañoo gëmoon yàlla waaye dégg diine itam dégg diine lu am solo la ci ab jullit dégg diine lu am solo la ci jullit moo tax ñu xamoon ne suñ borom kat moom moom lu ne ku ne moo lay sédd yaani sa euh, euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon ne ummati kalmatar sama xeet yi ñu ngi mel ne taw xamee su taw bi njëkk a wàcc di saxal gàncax gi ak taw ba ñu muccee wàcc di ñoral gàncax gi bu ci gën ñoom loolu lañ gëmoon ñoom ñaar xamoon nañ ne ñu fi juutu ñëpp yàlla leen may waaye ñoom itam waruñoo des gannaaw yàlla ma doon maye mi ngi fi lam doon maye xaajut yënguwut kon ñoom itam dañoo war a sóobu te ñaan suñ borom incarné ko te it loola suñ borom defal na leen ca ndam nee na loola nag moom la ñëw fii di ko feddali di ko dëgëral ci yéen. di leen sant bu baaxee ci toogaay bi ngeen toog ndax moom nituk information la te nee na jamono ne mi ngi gëstu mu ngi yuurndu mi ngi xool euh, mi ngi seetlu mi ngi informé wu waaye li muy xam lépp mu jóge fii ci yéen wala mu jóge ci seenu njaboot lépp lu mu ci doon diine rek lay doon diine rek lay doon ju dara raxut nee na loolu nag kilifa diine su meloo noonu ak njabootam mel noonu jaadu na képp koo xam ne loolu xam nga ko ci moom nga seereel ko ko du seereel ko ko ngir mu bég ca waaye ngir seereel ko ko rek ba mu xam ne liggéeyam bi muy liggéey am na résultat nee na loolu rek la ci jublu nee na sant na bu baax nag gërëm na bu baax mu ngi la ñaanal yàlla itam seen jataay bi yàgg lool seen jataay bi yàgg lool te ànd ko wér te nee na loolu yàlla ku ko man yàlla mën na ko lool te ñaan itam mi ngi koy yaakaar ci yéen ndax nee na ñaan mën na lu ne mën na lu ne te loolu xam na ci dara ndax Serigne Touba Xaadimu Rasuul bind na noone ñaane na noone waaye misaal mi muy joxe rek ci loolu misaal mu gàtt la moo xam ne dafa am benn. chirurgien bu ñuy wax Einstein boo xam ne ci wàllu chirurgie lim ci bindoon dafa baree baree bari ba ñu woo ko benn conférence di benn congrès di ko ndokkeel ci lim bind lu bari ci wàllu chirurgie mu jël avion avion bi 40 minutes rek la am ci jaww ji paan aéroport bi njëkk a jot ñu wàcc bi ñu wàccee mu daal di laaj ne moom kat mënta toog mënta yàgg ndax. moom minitam bu mu tardé rek ay bakkan yuy faatu la kon amul jot waa ji ne ko balaa avion bi diggante bi avion bi paree ba ngay war a duggaat de temps la da nga ko fi amaat waaye boo jëloon oto ngir jëm dëkk bi nga jëm deux heures de temps rek nga àgg mu daal ne kon na jël oto te bàyyi fi avion bi daal di jël oto daa génn rek mu tàmbalee neige di neige di neige di neige di neige ba xamatu fu mu jaar mu gaare nee ne fi ma gaare rek damaa séen rek xool lu mel ne kuux maanaam lu mel ne daal néegum ñax wala baraak ma daal di cay jawal ci digg àll bi bi ma demee bunt bi sax ubbi ko ubbul nee damaa fëgg waaye dégg naa soxna su màggat ne ci biir jàll sil bunt bi tëjewut nee na ma daal di dugg damaa dugg rek ne ko alma téléphone ma woote ngir bëgg a woo ñi ma jëm wax li ni ma gàllankoor mu ne may wax xanaa ko moo fi nga ne fii amul courant sax bay am téléphone yow daal dangaa son sonn fii ma defal la nga naan café wala nee na tàmbali maa defaral ak café bi mu ko defee ba ma tàmbalee naan nee na mu daal di tàmbalee julli moom soxna si di julli sëlmal rek di julli sëlmal rek waaye séen naa ku tëdd ci wetam muuru xale bu ndaw la li soxna si julli yëpp mi ngi koy rëkk rek mi ngi koy dóor rek soxna si julli ba sëlmal di ñaan rek di ñaan rek nee na ma daal ne ko soxna si mu wuyu ma ma ne ko sa ñaan gi nangu na yow kay da ngaa baax yow li nga ma defal yow sa ñaan nangu na mu ne ma daal man genn ñaan laa dese goo xam ne xam naa ne nangugu mu ne ko gumu mu ne ko man sama kii tëdd nii baayam faat na yaayam faat na man la dese maay maamam feebar bi ko dal nag dañ ko war a opérer te kenn képp moo ko mën a opérer muy Einstein te moom xaw ma mënumaa am lu ma yóbbu fa mu nekk loolu képp moo ma dese ci ñaan te moom lay waxal mu ne ko yow sa ñaan nangu na sa ñaan gi moo paanal avion bi sa ñaan gi moo wàcce neige bi moo tax ma ñëw fii ci yow kon moom xam na ne ñaan mën na lu ne man na lu ne kon nee mi ngi sakku ci yeen ñaan mi ngi leen di ñaanal yalla itam sun borom degeural leen taxawu leen yàggal leen fi lol te and ko wér te mission bi nga xamne mom lañ leen bàyyee muy mission bu reuy bu noble ngeen yóbbu ko fo xamne ne kowe jotul ñépp serigne bilal limnu waxon ci kaddu lu mat la lu rafet la lu jup la waye sunu gatt alluwa ak sunu ñak xam-xam taxna nimnu ko waxe munu ko munu ko ne waxe waye yeen nak xam ngeen li nit yéene xam ngeen tamit li nekk ci xol kon lu ci manqué lu ne mottali leen ko waaye sëriñ bi daal lim nu waxoon lu mat la lu jub la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi Cheikh Abdoul Bari Mbacke ñu ngi lay nuyu ci. làmmiñal alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass nuyoo boo xam ne ci sa loxo lay jaar àgg ci alxalifa Serigne Mountakha waaye àgg ci mbooleem njabooti Cheikh al Xadim di la tatagal ci sa biiri kër di la wax ne ahlan wa marhaban bikum tànk yi nga dox moo doon tànki mag ñi boo ko doxee duñ am benn éemu ci loolu ndax danga def loo xam ne fii nga fekkoon mag ñi di demlante di ñëwlante nga ñëw ba tey di doxal loolu kër gi ak Tuuba benn kër la Cheikh Ibrahima radiallahu anhu dilem moog Serigne Touba dajeewuñ nii waaye baayam jëflante na ak Serigne Touba yónni na magam Mouhamadul Khalifa yónni na magam Cheikh Alhaaj Mouhamad Zeynabu Serigne Touba addiyal na ko kaamil mu wax Mouhamadul Khalifa mu gërëm ko yónnee ko ay tagg gis nañ ay lettre yu dox seen digënté wa Cheikh ibrahim radhiyallahu anhu téré bimu ñëk njëkk taalif muy nasmu bimu ñëk njëkk taalif nga xamné dana nekk ci lenn ci téré yi nga xamné ne sëriñ bi mu ngi la koy jox muy téereem bi ñu wax ruhul adab lima hawa min hikam wa adabin nga xamne bobu day doora tàmbali waye mu ngi o talibi ci teggini yoon wi bam deme ba ci mujj ak téré bi muy wax ne bum la téré jàng sama téré bi ngir ne ndaw la ba pare nek ku ñuul ci réewi ajam yi bayti cheikh alxadim la indi ne qad qaala fi hada almajaali ahmadu amjadu qad qaala fi hada almajaali amjadu خديم طه المالكي احمد لماي واخني بوم لا تري جانغ سما وي وي غير ني خالي لا تي سي ريوي اجام يي داما نيول نيك سي ريوي اجام يي نдах وليس يكسب لول شيخ الخديم واخون وليس يكسب سواد الجسم بلاده الفتى وسوء الفهم شيخ احمد بام ما واخ لولو رضي الله عنهم اجمعين ني نيول نيولك در du tax nit ki dof wala mu ñàkk dégg moo tax Cheikh Ibrahim ba mu taalifee ba agsi foofu ni muy jëlee ci waxi borom borom xam-xam ba mu agsee ci borom axdar yi lu mu wax ne nekk xale bind téere bi bu mu la teree nga jàng ko waaye ba mu agsee ci loo xam ne tim borom xam-xam bu dëkk ak moom fii ci réew mi moo ko wax du ko romb di ko di indi waxi beneen boroom xam-xam. lolu nak moy ñu bax ñi nangulante giñ nangulante ndax sa wilaya bu wéré da nga nangul wali bu am wér bu nek te waxna ci benen téereem bo xamné ci rex la bam ya ci di wax ci jaraar waxne minhu wa min barayna lil jaraari minhu ataani alxayru bi انشدت ما قال الولي الاكبر فان حظي في المقال اوفر من ماغي واخ لو ولي بو ماك با واخون تا بوبو واخي شيخ الخديم لاي واخ بام تالفه تيري شي اسكاي غيرتي با اكسي دا فا واخني افتا بذا محمد البنبي عالم تل بلاد والولي لماي واخني محمد البنبي واخون نكو بروم خم خمي ريو مي تاي واليو kon dëgg-dëgg bu ngeen ñëwee fii seen kër ngeen ñëw Cheikh Ibrahim dafa bindoon ay taalibeem leetar ne leen maa ngi sant yàlla yàlla may na ma loo xam ne góor yàlla yu bari yu mébétoon nañ ko mooy man duma bañal kenn li may seet mooy ngërmaande yàlla lu yàlla def rek gërëm naa loolu ba pare mu ne nag ñi ma topp di jubale ci yoon wi nañ ma jéem a roy ci yoon woowu waaye xam nañ ne sa maam Cheikh Mouhamadul Moustapha moo njëkk a ñëw fii gane si Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu dalal ko ci néegab xalwaam bi nga xam ne moo nekkoon fii ci kaw jumaa ji ba jamono jooju mag ñi fi nekkoon te nekk ci yoonin murid moo leen santoon ñiy jullee si àjjuma fii loolu pour wane ne sama jumaa jee ca Tuuba ak jumaa jii ci Medina ku mënta agsi fii rek bu la neexee nga em fii ñu ci nettali xissa bu reelu dafa ñëw ñi teg lekk gi fekk bàyyi magam bu ñëw alxaaj Mouhamed Zeynab mu ngi toog ñu ubbi palaat yi rek mu mos rek ne ah lii dafa ëpp xorom kenn mënu koo lekk ah sëñ Modou Moustapha ne ah, lii dafa ëpp xorom kenn mënu koo lekk te moom mosagut bàyyi na waa dugal leen dugal leen palaat yi ci biir ñu dugal palaat yi ci biir bàyyi ne change leen kubéer yi rek indi yeneen kubéer ñu changé kubéer yi indi yeneen kubéer bàyyi ubbi mos ne ah lii de am na sëñ Modou Moustapha ne lii de am na bàyyi ne ko ah sëñ bi lii lañ fi tegoon léegi mu ne ko lii kat dara nekku ci xanaa kon sa mag yee xamul ñam <laughs> loolu yëpp mubaasata bi nga xam ne baynal ahibba ci lay xew ñu bëggante ci lay xew moo tax mbëggeel gi dëgg-dëgg amoon na démb boo toogee ba tey jii nga koy sàmm sëñ Cheikh Gaynde ma photo bii ñu génnee léegi wax na lu ëpp lu waxkat yi war a wax waaye fu nekk jaar na faak bàyyi daje nañ fu nekk dajee nañ Maroc dajee nañ fu nekk te lépp li mbokk miy wax bokk gis-gis ci luy benn la jullit ñi ak luy avancé jullit ñi nga xam ne ku am leeri xol yàlla dana la may ci kanam loo xam ne ni dafay jàng lu bari gëstu lu bari door cee àgg bàyyi nag bëgg-bëggam mooy waxal yëj maawul ayyaamu قوم محمد على نهجه من دون شك ومرية ندخ بسيدنا نمي ندم بجس قيت يونت صلى الله عليه وسلم نك بن تغوشي يونم كوي مبد لولو ديكو مبد عمتوي بو جسي بن بن ييغا خمني نيغي او مبولو ميشي يون وو بن بن يوي بولن خموتون صاح دنگ لين بغ رواتينا بغ لين خمي بوكو بن ريو بك بن قيت بوكو بن تاريخ بوكو فين جم ku bëgg jullit ñi ba gis naa muy ñaan di wax ne yàlla na ma yàlla boole ma déggoo képp ku baax ci réew mi ñii nag ku tudd ñu baax ci réew mi da leen tudd moo tax seen àndoo ak Baye nekk ànd boo xam ne nii ànd bu rafet la Baye tim dem na Touba gane ji ko dem na Touba ay yoon gane ji na tim Serigne Fallou kon nag euh, dëgg-dëgg yoon wi mag ñi nekkoon rek yoon woowu. moom nga jaar sëriñ bi tey ànd ak eh, sett si nga ànd ak nga xam ne buñ doon taxaw kenn ku nekk ci sa dayoo ci fii fii la ñuy fanaan waaye daal ñu ngi lay wax ne eh, sëriñ bi kontaan na lool ci sa tànk yi nga dox ndax tànk mbokk la tànki mbëggeel la waaye tànk buruur bil ni la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne min abarril barri an yabarral maru ahla wuddi abi bokk na ci gën a baaxee sa waajur nit ki baaxe ay soppee waajuram sëriñ bi soppe sa waajur la baayam soppeem la kër gii it ñi fi nekk seeni soppe la ñi ngi leen di wax ahlan wa marhaban bikum ñi ngi wax ne aqdaamun gayru daaiatin te mën nañoo wax ci mbooloo mi nga ànd ak la yonent ba waxoon cee yow mu badrin bañ koo waxee waa màkk yi ñan ñoo ñëw dafa wax saxaaba yi ne ramat ku mu mëkkatu bi aflaadi kabidiha kon ñun mën nañoo wax ne tuuba rabat naa bi aflaadi kabidiha te dafay uuteeg bale nga xam ne dañoo ñëwoon ñoom pour song yonent bi waaye da ngeen a ñëw ànd ak ñun ñi song li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mooy liggéey lislaam bi nga xam ne bu baaxee ñun ñëpp a baaxale lépp lu yàqal lislaam tim ñun ñëpp la naqadi ñi nga xam ne nag Baye waxoon na ne fukk rek yoo xam ne buñ déggoo ñi des ñëpp déggoo dëgg-dëgg ñooñu seen gisante dafay baax dafa baax ci mbooloo mi lii nga def dëgg-dëgg eh, jëf ju kawe la ju sell la joo xam ne nii ah, kilifa yaa nekk sa seen gannaaw sa gannaaw yépp ñoom nga ko defal waaye eh, yàlla dina ko gis yàlla na ko yàlla gis yonentu gis ko ñaanal nga sëriñ bi moom it mu ngi lay ñaanal yàlla may la nga mottali sémbu yi nga xam ne nii mu ngi ci sa kanam liggéey mag ñi nga xam ne nii yaa ngi ci nekk di ci góor góorlu yàlla dimbale la ci saxal ci sa ndëggu yàlla boole ñu xiir ñun ñépp ci liñ bëgg ak ci liñ lim bëgg ak ci lim gërëm di ñaanal sëriñ bitim moom it nga xam ne dëgg-dëgg lii rek mooy taxawaayam jullit ñépp la bëgg de waaye nag jullit ñi xam nañ ñi nga xam ne nii ñoo amee noskaay jullit ñi nga xam ne bu seen mbir baaxee mbiri jullit ñépp baax ñun ñëpp lañ bëgg ñuy baax de waaye ñooñu rawatina te ñooñu ci yéen ñooñu ci ñoo ci ñooñu lañ leen boole ci ñooñu ngeen bokk yal yàlla boole ñu wëttu yal yàlla wëttul ñu bokk gi wëttul ñu alaaqa bi nga xam ne yàlla tax te loolu moom mooy lii sax maa kaane lillahi daama wattasala wa maa kaane li gayrillahi inqataa wanfasala lu ñeexal yàlla moom dafay sax te dafay jokkoo te alaaqa bi ci yàlla la woon te yàlla la ñeyal moo tax mu ngi sax ba léegi tànk yii mu ngi jugee ci tànk yële kon nag yal yàlla wëttu la yàlla yàlla wëttu sa mbooloo barkeel sa yëngatu barkeel sa dal jot la cër bu law ci Cheikhul Xadim boole ñu xiir ci lim bëgg ak ci lim gërëm boole ñuy dimbale dimbale lislaam ci ñun dimbale yàlla ndax yàlla moo ne in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdaamakum te mooy nekk rek ci li yàlla bëgg te lii moom amul benn sikk ne bàkkaar nekku ci te dana faar bàkkaar yal yàlla demee bàkkaat yépp yal na yàlla faj aajo yépp yal na yàlla raxas xol yi feesal ko ci mbëggeel mbëggeel ak yàlla mbëggeel ak yonentu bi ak bëgg ñi nga xam ne dañoo bëgg yàlla bëgg yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh